pour la promotion et le développement de l'artisanat mu mel ni lu nu mel nag euh, ñenn ñi ñi ngi ci euh, réagir ñi ci ñi ñi jàpp ni népotisme dafa am ci lu nu mel ñi nga xamante ni nag ñooy euh, ñi fare ak coalition Diomaye ñoom ñi ngi défendre nomination boobu leen ndax jàpp nañu daal comme li honorable di faral di wax saa su nekk gagnons ensemble gouvernons ensemble ñoom nag jàpp nañu lu nu mel moom la ñu daal di def te ki nga xamante ni nag mooy doomu Yacine Fall boobule bokk na ci patriote yi gën mag saa su nekk dafa doon xeexal Euh, projet bi teyit nag am na compétence yi war ba tax ñu nominé ko donc mu mel ni lu ni mel jamono ji honorable jur na euh, polémique ak yeneen i euh, mbir ministre du commerce bi nga xamante ni tamit mooy Serigne Gueye Diop moom miñ ne nag ci dafa daal di nommé sa propre fii ak belle fille ci cabinet am donc mu nekk mbir mi nga xamante ni réaction yi bari na ci wàllu woowule ban gis-gis nga ci am waaw xam nga soxna jaar Euh, amul loo xamante ne nii dañ ko doon tere ci jamonoy Abdou Diouf ak Ablaye Wade bëgg koo daganal ci jamonoy Jomaay soo ko defee nit ñi ci boppam dinañ ne la Serigne Cheikh Tidiane si almaxtum waxoon yaa nga ca. Mhm. far aayul yàlla njëkk a far. waaye par parloo moo aay. xam nga affaire yi dafa bëri te wuute soose. Mhm. mbir yi ni mu bëri te wuute mooy. Jacques Habib Sy dañ na faluñu ko dañ na faluñu ko booy benn ñaar doomam ji dañ ne dafa engagé woon politiquement ci projet bi te doomam jooju Jacques Habib si falu ko Sénégal nag dafa am loo xam ne moom moo fi nekk muy la dévolution wala dévolution monarchique la nit ñi mës di xeex ak jël ay goro jël ay doom wala rakk joo bokkal ndey ak baay dugal aux affaires ñun nag loolu moom dañ koo mës di xeex. Mm-hmm. moo tax ma ne la ñaari cas am. doomu Jacques Habib Sy bi yaayam falu ko papaam falu ko comme Macky Sall ni mu falee woon Alioune Sall caisse de dépôt et consignation. Mm-hmm. fal ñoom Mansour ay goro. Ablaye Wade jël doomam fal ko dëgg loolu dëgg kooku moom awma lu ma ca wax man ku xeex ci projet bi. appel à moo tax gëwuma ko ko xeex ci projet bi man je suis pour nga bokk ci ñu gouverner mm-hmm. par contre le cas Serigne Gueye kooku moom je suis foncièrement contre loolu mooy sama position dafa jël gorom dafa jël doomam kooku lañ fi doon tere te bu dee loolu lu am la xam nga man nag dewuma ministre commerce gis naa ñu bind bu dee lu am la man Ahmed Aïdara dama doon nekk ci rajo di di di di di di ko xeex xeex fi la dévolution monarchique bi ñu ne moom la Ablaye Wade bëggoon a def d'ailleurs avant sax ñu yegg ci ay dévolution monarchique man jël ay Karim Wade di ñu ko ay poste ministre ak yooyu sax man loolu dama ko mësul gëm te mësuma ci d'accord quelles que soient ses compétences jaaral doo ma ne biir parti démocratique sénégalais ñàkkul koo xamante ni mën nañ koo dénk infrastructure ñàkkul koo xamante ni dañ ko war a dénk coopération internationale ñàkkul ñàkkul ñàkkul ñàkkul ñàkkul dëgg loolu dëgg nga ñëw ci biir APR caisse de dépôt et consignation ministère infrastructure ñàkkul ci biir cadre yi ñoo xamante nii am nañ xam-xam parce que yow Macky Sall Aliou Sall da doon ngénte nga ñëw toog nga ne ko duma la mës a nommé décret lu fi soppeeku ba nga jël ko nommé ko ñu lay tuumaal ne Ablaye Wade benn doomam tundum benn doomam tundum tundum la faloon dëkk bi yëngu yow nga ñëw indi sa rak indi say goro indi say cousin indi indi ñoo say nijaay ñoom timboo ñu nga bokkal benn kër bokk ak ñoom benn deret soose ci culture Sénégal ñun xamuñu loolu te boo bëggee dégg dëgg aussi xoolal quelle que soit seen compétence naay sul si c'est avéré parce que info bi nii la ko journaux yi bindee keroog lii quotidien ay lii ak lii ak lii ak lii man nag xaw ma Serigne Gueye Diop xamaanu ma ko dégg laa ko ma sax Serigne Gueye Diop mosuma gis comme nii gis ko nii mosuma ko gis de Ousmane Sonko de mos naa koo gis Diomaye mos naa kaa gis mais ministre commerce mosuma ko gis bu dee nag dafa jël gorom wala dafa jël doomam bu faqee ko ci moom nommé ko kooku Diomaye ak wala patron sax le chef du gouvernement Ousmane Sonko. da ko war a woo ba mu ñëw ne ko na dañ par contre su doon moom doomam joomaay moo ko nommé ndax compétence am ak xeex ci projet bi man de gisuma ci dara c'est le cas de Yacine Fall ak doomam ak xeex na bokk na ci projet bi am na xam-xam ndeyam falu ko bàyyam falu ko président de la république moo fekk ab gone gu jigéen fële xeex ci projet bi am ay lijaasa xool xool sax kii fii la bokk wala fii la bokk ay compétence am la gis ak mu nekk koo xam ne ku mérité poste bi la mu jël ko dugal ko par contre su doon joomaay dafa jël doomam bu am vingt ans wala koo xam ne day denc doomam wala rakam saa yi mënuñu woon ne fii di ko naqarlu ci jamonoy Macky Sall di ko naqarlu ci jamonoy Ablaye wat parce que tout simplement jëlee nañ fi Macky Sall nous sommes de la mouvance présidentielle nga toog ci tele rajo ne man de li ma doon bañ keroog vraiment nangu naa ko tey. kooku même waa Pastef fii sax bu ñu la seetaanee sax dañ naan déggal sa waay boo demee day bañ koo cent douze heures kese mais ndekete du dara parce que lii nii dafay daan revue de presse di naa la lépp loo xamante ni dama ko doon wax daaw di ko naqarlu ci nguuru Macky Sall du ma toog publiquement di di def nii parce que doo ànd ak nit kilifa kenn du ko yedd ci mbooloo mais fu ma ko war a kaase moom dinaa ko fa kaas boo ñëwee ba ci mbedd mi comme nii rek ni ma fi dajji nag laaj ma fa nag laaj ma ko ci mbedd mi ma tontu la ci mbedd mi. Mm-hmm. le cas Serigne Gueye daal bu dee loolu dëgg la. nañ ko rectifier ci nu mu gën a gaawee. amul ay xoolal même bu bo même bu doomam bokkee ci projet bi waaw parce que ñoom Mansour Faye dañoo bokkoon ci projet wu Macky Sall APR lañ bokkoon mais du yoon nga jël sa doom wala sa goro wala sa wala sa jabar wala sa xawma la nag la ak lan ak lan ak la mm-hmm. jël sa dig jël sa dig nommé ko soose nga nekk maire rek ñu ne la jëlal ay agent mu ay dara mii de bu yaakaaree mairie Guédiawaye bi day sommé ba keroog muy dee. d'accord. voilà Socé mu mel ni jamono juñ toll nomination yu mujj yi dafa jur polémique doomu Yacine Fall bi nga xamante ni nommé nañu ko directrice Serigne Gueye Diop nga xamante ne nañ ñenn ci femme même aussi daf leen daal di jël nommé leen ci cabinet donc ñenn ñi jàpp ne népotisme la ñu commencé di nemmeeku ci régime bu yees bi lee ndax jàpp nga lu nu mel yéen ak ñoom yéen a bokk gis-gis jëmale ci wàllu woowule waaw am na ñu ma ci bokkal gis-gis waaye am na ci ñu moo ci bokkalul gis-gis euh, defe naa El Hadj li ma toon a leeral yëpp leeral na ko. Mm-hmm. Euh, d'abord népotisme baatu népotisme il faut nit ñi xam mooy lan. Mm-hmm. bu ngeen jëlee seen téléphone ngeen dem Google ngeen tàppee népotisme. dictionnaire bi daf ne mooy abus qu'une personne en place fait de son influence en faveur de sa famille virgule de ses amis. kon mooy ñu fal la ci barab nga user de ton influence pour jëme ci sa njaboot walla ci say xarit ak yooyu ca fa nga ne. moo tax nag ñu war a séparer ñaar bu fekkee ci lu concerné doomu soxna Yacine bi mooy sofi Zengas euh, si foofu amul népotisme parce que ki nga xam ne moom moo am pouvoir discrétionnaire di nommer aux emplois civils et militaire muy le président de la République moom moo jël décret nommé ko. foofu népotisme amu fa li ma gëm mooy le président wóolu na ko gis na ay compétences yi mu am gis na aussi xarañteef bi mu ne woon dans le passé jëm ci wàllu artisanat wàllu mode ak yooyu yëpp parce